asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokku senegal mbokku àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar man la imam Mouhamed Diop cité Fadia euh, maa ngi nuyu àdduna bi yëpp waaye di leen woo ci ndaje mi nga xam ne jàpp nañ ko samedi 10h place de l'Obélisque sababu ndaje bi nag mooy ki nga xam ne mooy Macron du président France kàddu yooyu mu yëkkati te mu naq di jullit ñëpp. Euh, ñu bëgg ñu ñëpp ñu ñëw daje foofu saxal dëggal suñu taali bi ak suñu cofeel ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa waaye ñu saxal dëggal suñu euh, mer ak suñu naqarlu lii nga xam ne kii di Macron ak ñi mu àndal ñu ngi koy jëmale ci suñu diine ak sayiduna muhammad sallallahu alayhi di ci invité ñi nga xam ne ñoo ŋànk état bi yëpp assemblée national waa présidence opposition bi Sénégal bu kenn bu kenn des ñëpp nañu ñëw place de l'Obélisque 10 heures jërë ngeen